mbooloo mu takku teewee nañu bés bi jëm ci wàllu sargal ak delloo njukkal képp kuy jigéen fii ci Sénégal rawatina waa Grand Yoff Awa Sarr bokk ci njiitu benn Bokk Yaakaar bu section Grand Yoff doon na ci indi ay kàddu tey buñ demee bañ ne Awa Maimouna Sow la ak honorable Ablaye Ndiaye ak Lulu ñu ànd ànd bu dëggu ñu nekk ci terrain bi di liggéey may daan Adja Maimouna Sow ne dañuy former calebasse de l'émergence Benno Bokk Yaakaar mu woowoon ñëpp waa Grand Yoff yëpp la woo ñu ànd ka moo njëkk a teg calebasse Grand Yoff comme tey bu ñu amee lu ñuy Maimouna Sow la ñuy remercier dafa voyagé dafa ànd ak ministre de la femme dem États-Unis moom sax mu ngi ñuy xamal ne naam am nañu yaakaar ci DER bi waaye amul kenn ci ñoom ku ko ci am. DER bi ñëw na mais ñun waa Arafat fii kenn amul DER mais xam nañ ne dina ñëw parce que ADR Cheikh am na faa ñuy jot mais nañu jot. te defe naa séddale yow mi yow mi moom yaa war a mujjee ñu ñu ngi leen di déglu te xam naa ne première dame bu déggee dinañoo jàppale femme Grand Yoff parce que ñu engagement ñu boorewul dara wax di liggéeyal président di porte à porte def guddi ak bëccëg Adja may mën a saw tamit noonu ñun daal xam naa ne lii moom bu jàllee suñu xol dina sedd parce que femme yi brave ñoo fi ne te sëntuñu dara xam nañ ne daal deer bi moom dina yegg si fii kenn amu fi deer kenn amu fi deer ñu bëri da fii ni Arafat fii kenn amu fi deer mais nag dañu gëm li ñu gëm di jàppale président di jàppale honorable Loulou Diouf xam nañ ne dinañu gëstoo. mu ngi dellu di woo jëwriñ ju ñu dénk mbirum jigéen pour mu jàppale leen ci formation. man dama dëkk ak xale yi ñu nekk xale yu baax te dama leen tey seen bés la te yéen may sécurité waa Zalzala laa ne yéen yéen a yore bés bi tey bëgguma fi dara yéen a may te ñoom xale yi neex a waxal lañ parce que ñun lu ñu siy def femmes yi ñu ngi liggéey développement gis nga li ñu exposé produit Valerine indi na fi ay produits. indi na fi ay sachet de jus indi na fi ay jus bisaab jus mango yëpp indi na ci lekket kii baa ngi ni jamra baa ngi ni bu ñëwee dañuy dimbale femmes soxla nañ tamit Grand Yoff ay formation ñu forme ñu suñ jigéen ñi surtout développement parce que tey bu ñu nee jigéen jigéen développement ministre de la femme mu ngi si liggéey Adja Ndeye Saly Diop Dieng mais nag benn loo gis si benn la commencé ñu ngi ñaan yeneen femmes yi tamit ñu jàppale leen taxaw leen surtout si formation ñu si mais mu yegg si niveau de Arafat